ñoo ngi am mbégte ci dalalaat leen ci benn ci plateau yi nga xam ne nii ci plateau yi màggalu Touba deux vingt la bokk dëppoog mille quatre cent tey nag ñuy am mbégte di dalal suñu ustaaz suñu waajur sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud nekk koo xam ne nii nekkatul ku ñuy présenté ndax mboolem kuy yëngu ci toolu xam-xam bi xam mi nga jëmam waaye it miin nga kàddoom ak xam-xamam bu sell Serigne Cheikhouna mbake war ñoo waxtaanal tey ci yitte ji nga xam ne nii xam-xam am na ko ci njàngale ak ci wooteeg Cheikhuna Ahmadul Qadim Serigne Touba mi nga xam ne nii boo demee ca nahju da fekk mu naan wala takun fi kulli yawmin taarika taalluman summa bihi amal naasika fal ilmu yuxyi qalba man taallama yunawiru qalba kama yajrul ama waaye it boo demaatee ci beneen bindam fekk fa mu lay wax ne fal ilmu wal amalu jawharaani li xayray daarayni yajlubaani te moo xam-xam ak jëfe xam-xam ñaari mbir la yoo xam ne nii mboolem lu nit ki bëgg ci àdduna wala ci àllaaxira moo ko koy xëccël waxtaane xam-xam nag ci njàngaleem sëriñ bu mag bi dana yomb ngir ne li sëriñ bi di jàngale te moo lislaam la ca yàlla njëkk wax yonent bi alayhi wa sallam keroog ba ko jibril di fekk ca xaaru xiraa moo iqra te moo di jàngal ngir xam ne bu jàng amut mboolem lay topp ca jëf ja mën naa safaanoo ak la ka wara def kon duñu yaatal ci ubbi dañuy bàyyi rek sunu waaju sunu ustaaz sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud mu waxtaanal ñu ci sëriñ bu mag bi ak xam-xam wàccuwaay bi nga xam ne nii am na ko ci am jàngaleem ak wooteem sëriñ Cheikhouna bismillah bismillahi alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu mbokk yi ànd ak ak fu ñu nekk ci àddina si di la ndokkeel ci bis bi nuy seentu tamit bisu màggal gi di ñaan yàlla fekkeloo na ko ak jàmm di ko ñaanit mu defal nu ci jàppandal ba nu defe ko ni ko boroom bëggee di ko ñaanit yiw wi ci borom digee wépp mu jotale nu ci waxtaane sëñ beeg xam-xam nag ni nga ubbee rek day wane wàccuwaay bi xam-xam am ci sëñ bu mag bi ndax bokk na ci lu koy gën lu koy wane li mu wax ne li njëkk a war ab taalibe mooy mu sàkku xam-xam ab taalibe li war a njëkk li njëkk a war ci moom mooy mu sàkku xam-xam awwalu waajibin alal muridi tahsilu zaadihi min at tawxiidi kon sàkku xam-xam mooy li njëkk a war ab taalibe loolu lu jar lu jar bàyyi xel la ban xam-xam nag xam-xamu diine moo ci jiitu xam-xamu diine mooy lan mooy xam-xam bi nit di xamee li yàlla bëgg ci moom ak nim ko bëggee ci moom te xam-xamu diine mooy ñett yooyu ñett yooyu nga xam ne rek ñooy gëstu ci ñetti xaaji diine yi muy tawxiid xam-xamu bi gëstu ci wàllu pas-pas li ñu war a gëm ak niñ ko war a gëmee fiq di xam-xam bi gëstu ci wàllu jëf li li nit sañ ak lim sañut li ko war ak lu ci ne nam ko nam koy defee la ko war ak lañ bëgg ci moom ak lañ sopp ci moom lépp ak lu ci ne nam koy defee ak nag tasawuf miy gëstu ci ixsaan te mooy di rafetal ak sellal rafetal jikko ak sellal jëf kon ñetti xam-xam yooyu la ñuy tudde xam-xami diine yi xam-xam bi sëñ bi sëñ bi wax ne moo war jiitu ci ab taalibe di ko sàkku mooy li moo mooy li njëkk a war ci taalibe mu sàkku ko mooy ñetti xam-xam yooyee la munta ñàkk ci kenn ku mooy lu ñu tuddee faratay jëmm lay tax lay faratay jëmm mu mu xam ko man koo defee nañ ko bëggee loola moom mooy farata ci jullit jullit bu ne muskàllaf mu ne moo tax mu ne ab taalibi kon loola moo jiitu ci la ko war ndax yonent bi dafa waxoon ne sàkku xam-xam farata la jullit bu ne jullit bu ne jullit bu ne nag góor da ciy dugg jigéen dugg ci képp kuy muskàllaf rek sàkku xam-xam day farata ci moom xam-xam booba nag ba tey mooy xam-xam bi nga xam ne ci la nit di xamee liy faratay jëmmam mooy liy farata ci moom te kenn mënu ko kenn mënu ko caa yóbbaale kenn mënu ko ko defal moo koy defal boppam rek loola nag bu xasee jàll beneen xam-xam bu ci dolliku moom sàkku ko coobaree nit ki lay doon ak aajo yi aajo yi fi mu nekk luñ ca aajowoo rek war nañoo taxaw ba am ñu ko sàkku ñu mën a faj aajo jooja kon xam-xamu diine boobu nag mooy li nga xam ne moom farata la ta ñàkk kenn ku ne sàkku ca la nga xam ne mooy tax mu mën a defar mu mën a mu mën a mu mën a e, taxawe ay farataam farate jëmoom yi nga xam ne kenn mënu ko caa yóbbaale kon sëñ bi nee na kon sàkku fara sàkku xam-xam mooy li njëkk a war ci ab taalibe muy xam-xam boobu ñu wax nag bi ko diglee itam ci ay mbindam téere yu bari tudd nga ci yenn léegi waaye téere yu bari da ciy digle sàkku xam-xam rawatina téere yim jagleel ndaw ñi mi ngi wax ak ñoom naan leen bu ngeen bañee gàcca na ngeen jiital xam bala ngeen a jëf yaa ayuha subbaanu in xiftum xajal faqaddimu taalluman ala amal loolu mënees na koo firee wàllu gu mën di doon boo ca bañ gàcca mooy def ca lu defe mbir lu wuuteeg nañ ko war a defee da jiital xam ak moo mbir mu mën di doon rek da nga caa war a jiital xam bala ngaa jëf kuy def loolu mën naa bañ a am gàcca waaye kuy jëf te jëf ja xam jiituwu ko mën naa am gàcca ca la muy def gis nga tey rek mu tasawdu subaan bi nga xam ne da ko da ko jagleel waxamaane yi tasawdu siraar bi ndaw ñi muy xale yi mi ngi mi ngi leen ci moom itam soññ di leen dénk sàkku xam-xam yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an il huda wa bil ulumi istaxilu wastaxilu bil xifdi wa tilaawa wajtanibu majalis ashaqaawa kon lim leen dénk mooy sakku xam-xam ak nekk ci njug di ànd ak ñi jub ñi loolu kon la dénkaane rawatina ndaw ñi mu dénkaane ndaw ñi lool nag ñu sàkku xam-xam ndax waxtu ndaw mooy waxtu wi gën a mën a sàkkoo xam-xam mooy waxtu bi gën a jàppande te mooy waxtu wi nit di gën a mën a jàppe moo tax mu wax ne e, nit ki bu teelut a sàkku xam-xam waxtu wi mu nekkee ndaw amul ay yitte amul ak jaaxle bu ko defut bàyyi ba doon mag nag ba yitte ñëw jaaxle gi ñëw mu naan day sàkku xam-xam du ca mën a am la ca ka ko sàkku ba mu nekkee ndaw di am fa kullu man ba dar lil ulum maa tafarruxin laha qabla alhumum fala yanaalu xaaliban matluba minhu wa laysa yaxtawi marxuba kon waxtu ndaw mooy waxtu yi nga xam ne ci lañ war a gën a sàkkoo xam-xam ndax ci lay gën a yombe te ci lay gën a saxe itam moo tax mu wax sax loo xam ne yàgg nañ koo wax muy nit ki li mu jàng ci waxtu ndawam day des ci moom ba mel ne ku demoon fekk aw xeer mu yett ca dara bind ca dara yett ko lu yàgg-yàgg-yàgg bu ñëwaatee fekk ko fa ki nit ba doon mag nag mu ne day jàng day mel ne rek ku demoon ba ci géej ci ndox mu nan da cay bind fu mu teggi xam rek kenn duñ gis lam fa doon def loolu lu ñàgg wax la waaye bi ñëwee da ko feddali da koo dëgëral wa shabbahu taalluma sigaari kan naqshi fi l ahjaari fi l aathaari wa shabbahu taallumal kibaari kalkat bi fawqal maa i fil asaari kon loolu lépp day wane rek ne e, ci ndaw lañu war a sàkkoo e, xam-xam ndax ci la gën a yombe te ci lay gën a saxe waaye teewut itam mu wax nag ne ku am lu teewoon mu sàkku xam-xam ci ndaw moo xam lu man tax moo xam ay way jur mi ko waroon taxaw ñoo ko taxaw wut wala daal lu man xew bi mu mag nag mu xam ne sàkku xam-xam war na da ko war a sàkku da ko war a sàkku bi wax ak ndaw ñi te te sawdu sixaar ne ne leen teele leen ko teewut nee na ku mu raw nag ba mu doon mag it bu ca góorgóorloo mën na caa am dara bu ca góorgóorloo mën na caa am dara wa man tadaaraka alladi qad faata min allaga wa amara al awqaata bi tawbati nasuuxi wal iqbaali ilal ilaahi faasa bil kamaali ñaar yim dénkoon ndaw ne leen na ngeen ci nekk muy sàkku xam-xam ak ku njub mu wax ne nag ku sàggan ba ak ndawam am lu ko ci rawit bu doonee mag nag ba rëccu ak rëccoom mooy mu góorgóorlu jéem a dabaatal jéem a dab dabaatal kon loolu mooy dafa war kenn ku ne am na bataaxel bu mu bindoon bind ca ne maa ngi digal képp ku aju ci man muy góor muy jigéen maa ngi koy digal mu jàng ba xam ay farataam yi munta ñàkk mu xam leen xam nam koy defe nen man nag warlul naa leen ta taalifal leen téere yu ngeen mën a jële loolu te loolu def na ko mooy taalif na téere yooy nit ki li munta ñàkk ci moom ci faratay jëmmam bu ko jàngee dana ko ca mën a xame nga xam ne kenn mënu ko caa yóbbaale moo koy maa defal boppam loolu am solo la muy wallu xam-xam nañ ne li gënoon a li siiw fii ci béréb yii ba léegi sax des na ci ñu bare bari mooy xam-xam dañoo jàppoon ne mbirum góor la waaye du mbirum jigéen rawatina xam-xamu diine sàkku xam-xam ci boppam rek dañoo jàpp. Euh, jërëjëf Serigne Cheikhouna dénkaat yi am na solo yàlla na dajeeg nopp yoo xam ne nii des koy dégg ak cër yoo xam ne dañ koy jëfee euh, kon fi la ñuy waaye nag bu ñuy waxtaanee ci xam-xam ak effet boo xam ne nii wala wàccuwaay boo xam ne xam-xam am na ko ci njàngaleem Serigne Touba. ma ne su ko jeexalee lu dul ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci liggéey bu mag bi nga xam ne sumb na ko di université bi te bokkoon ci naali Serigne Touba yi comme ni ko Serigne Cheikhouna Mbacké waxee sànq te leeral ko ca leetal ba nga xam ne nii sëñ Mbacké Bousso bindoon na ko duñ def lu dul ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñ borom sottal liggéey bi waaye sottal ko ci ay loxoom suñ borom may ko mu fekkee lu yàgg a yàgg taxawu liggéey bi ni mu ko bëggee ah, yàlla mën na ko sañ na ko. yàlla na ko def kon ñi ngi yam ak yéen fii ba ba leen jotaay di leen sant bu baax a baax ci seen teewlu di sant Serigne Cheikhouna ci kàddu yu am solo yi waaye di sant suñ mbokki techniciens yi ci jàppandal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa